présenté plan bi agent yi nga xam ne ñoo nekk ci biir société bi ndax defoon nañ ko jëmale ko ci partenaires yi ci banques yi ak société ñuy liggéey tey nag dañ ko doon expliquer agent yi nekk ci biir société bi pour ñoom ñu xam plan bi lan la leen mën a indil plan bi nag ñeent ci ponk rek ñoo ko wund mooy euh, la partie cadre juridique réglementaire maanaam ni ñuy liggéeye jumtuwaay juridique yi ñu mën ko am ñaareel bi mooy ñu fexe ba nga xam ni mbalit mi amal ñu njëriñ maanaam ñu koy segg yóbbu ko aussi ci pour mën ko transformer ñetteel bi mooy système de nettoiement bi ñu fexe ba yokkal ko doole mu gën a performant ñenteel bi nag te mooy bi ci ëpp solo mooy wàllu nit li tubaab di wax capital humain ñu góorgóorlu aussi ci salaire agent yi seen formation seen encadrement seeni plan de carrière donc yooyu yëpp lañ doon expliquer tey lépp lu ci stratégie de gestion des ressources humaines pour agent yi mën ci gis seen bopp ñoom itam ñu gën a mën a accompagner plan Exsina bi nga xam ne am nañ yaakaar ni dina amal réew mi njëriñ fileeg cinq ans